Diop euh, Seck ñu ngi koy nuyu ak euh, Mintu ñoom Edouard Tall de la part de oncle Diakhaté moo leen di nuyu euh, di wax tamit am nañu mbégte contentement ci taalibe Thierno Abdourahmane Bari yi nga xam ne nag le 7 février incha allah ci cinéma Vieux de sérieux danañ fa amal nag waxtaanu Thierno Abdourahmane Bari nga xam ne nag waxtaanam yëpp ci jàmm la kay nekk nag coordonnateur bi de Omar Thiam suñu xarit ak Bokar Dem ñoom Thierno Hamdou Rabi ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar di nuyu tamit suñu atelier couture nga xam ne keroog moom moo d'ailleurs sopp Serigne Fallou nekk ca Pikine Tali bu mag ak tout son personnel ñoom Aline Wagne Gora Diop Abdou Ndiaye ñoom Abdou Latif Thiam Daba wañ ak euh, Ismaïla Bari Maguette Ndiaye ñoom Mami Diop ñoom euh, madame Sow Mariam Fall ñu koy nuyu tamit bu baax euh, ak ki nga xam ne moom mooy chéri Demba saw di Mariam am nañu mbégte contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show rawatina ñoom Pépé Mbengue ñoom As Mbaye Amadou Sène ña daaw Daouda Niang maire de euh, Rufisque sama xarit la jaxate pharmacie boulevard nuyu nañu ko bu baax waaye di am mbégte contentement ci Adja Ndeye Lagos Ndiaye ak Adja Nogay Diop nekk ca Grand Dakar ay soppe élage bu bilal nañu waa ASC Super Étoile di def nag seen Dakar ne dort pas samedi bi di ñëw bu rëy rëy rëy foofu nag ak ASC Super Étoile ñu ngi ci am mbégte contentement nee nañu nag euh, dina nekk euh, lu rëy parce que élage bu bilal invité nañu ko ci ak groupe Kouthia Show nga xam ne nag moom mooy Euh, lu rëy luy am foofu ca week-end bi ca biir super étoile ñoom ñoo nag jëloon seen coupe sargale ko El Hadj Abou Bilal nuyu nañ leen képp koo xam ne yaa ngi foofu rawatina suñu xarit Assane Diop mi nga xam ne soppay équipe nationale bu euh, équipe bu ASC super étoile foofu ca Ndar bu ndaw ak képp koo xam ne yaa ngi foofu ñoom Jaga Njaay nuyu leen waaye tamit euh, di nuyu baax jatulay suñu xarit la suñu soppe la di am ca contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show ca Ndar ñu bu baax Fatou Wade danseuse ñoom Ndeye Diop Ndeye Marie ak Mariam Mbocc fàttewuñu tamit ki nga xam ne nag moom mooy mama Mbeng Iba Iba Iba Diagne ñu ngi koy nuyu taalibi Serigne Bass Baara Momar Taala ñu koy nuyu ñang nekk foofu ca itali ak Ñaasa Thiam euh, foofu ca itali di nuyu tamit Abdoul Aziz Ndiaye ca tali bu bees de la part de fal ñoom am na nañu mbégte ak contentement bu mag ci soppe yi kon mbokk yi ni ñuy def rek moom mooy dem seeti ki nga xam ne nag suñu xarit la di euh, Moustapha Niass nee na am na ñu def pétition pour jéem koo daaneel waaye ñooñu fu ñu nar a mujjee moom nan la nar a demee ñu seeti Moustapha ayca militant yaa ngi noonu toog. Moustapha Moustapha Moustapha Niass Kumba Moustapha Niass Kumba. jërëjëf Moustapha Niass Kumba Moustapha. ni góor pire la Tafa ni góor pire la Tafa. saa yi ma génnee sama buntu kër fekk leen ngeen toog. dëgg la. ngeen di xeex ndax man yéen ñii xàmme naa leen. gis nga yéen maa leen amel ñaan. tey billaahi yàlla dina leen defal jàmm. man ku ñaanal nga gis ko. ndax man nit koo xam ne laa bugguma histoire. waaye seytaane yi wër naa nañu def pétition pour jëlee ma fii mais ñii ñooy ñaan magam jëmm rayante jël AFP. teg ko ci kaw tali bi na ñun dañu bëgg a wane Sénégal ñu ñëpp benn nañu am ay baadoolo ñuy wër naan dañu fexe pour man ma wàcc waaye ñii ñoo bon waay. dëgg ci dara munuñ waaye li ma bëgg ngeen xam ko yéen ñii toog kenn ku nekk xàmme naa la yàlla dina leen defal jàmm bi yàlla dina leen defal jàmm waaye man xanaa ñu tase nag sama noon dëgg laaj ko ndax Moustapha day dem am déet. kooku da ko waaw waaye bu dee yéen la rek xam naa ne doole ko mos a nangu. waaw man waaw man lan laa def bañ ma war a mën a jëlee fii lu tax ñu ma fii bëgga a jëlee. gis nga am na ñu nekk ci ginnaaw ñuy ruux waaye ab tapet mooy nekk ci ginnaaw di ruux guerrier day taxaw. guerrier da taxaw ne man maa bëgg nga jóge waaye dool gis ay nit ci ginnaaw di wax ay nit di jéem a complot waaye di xam na ne man saalum saalum la man du ma sant yàlla sant yàlla man namuma coco ni ko xale yi di waxee man namuma ndimb namuma maase gerte yàlla na yàlla defal jàmm mais billahi wallahi taalahi dinañ xam ne ne man lii jóole ma fi Ablaye Wade nag man du ma wax ak moom nee naa Macky Sall bàyyi mag danse ko ñu réglal la ko ba mu ne kurut kara rek ndax ñun xam nañ ko bu amee lu muy wax na ñoo wax ak ñun na bàyyi goos bi goos bi macha allah toor fa kàllakaar kenn gënu ko Macky Sall yaru na am na kersa luñ ko waxal rek dañ koo tooñ waaye Ablaye Wade na ma Il n'a il qu'à m'attaquer. Il m'a attaqué. Il verra quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa, dans sa lépp lu muy wax ay menace la bu génnee bomb ma génne bomb an koy dégg bu naan damay génne bomb na génne bomb loo xamal nit benn xamal na la ko ñaar billahi bu ma waxalee Abdoulaye di ay jikkook Sénégal génn ci moom ñun ànd nañ ak moom c'est quelqu'un qui cache la vérité il dit c'est du chantage des yi waaw na bàyyi gune na bàyyi xale bi mu liggéey kii yàlla ko ñaanal la ko jal jalal ba mu pare na bàyyi ba jal bi tas waaye du ma moo koy tas Ablaye il est petit pour pour pour pour pour ku lakk daay ji. ku lakk daay ji. waaw yàlla ka daay ji. ku lakk daay ji. dama mer man dama mer. man man dama mer. man dama mer. man dama mer. bilaay dama mer. man dama mer bilaay dama mer man dama mer ku lakk daay ñas ku baa yaa lakk